leen ak jàmm mbiri immeuble bi ñu lakk ca 18e arrondissement bu Paris coow li jeexagul l'observateur waxtaan ci ak ay jegeñaale njaboot gi loru ca Missira la yéenekaay bi xëyee niki tey jii nga xamante ni fa njaboot gi fekk baax yéenekaay bi waxtaan ak Souleymata Souare di yaay ci Kañaasi Tandian mu ne njabootam yelloowul lii laata mu ci yokk ne ki lakk immeuble bi tax njabootam gi faatu du ko ko baal mukk keneen di Alpha Tandian yokk ci ne seen xeet la ñu bëgg a jeexal ndaxte ñaar ci njaboot gi ci weeru juillet gi weesu dong la ñu génn àdduna l'observateur jeexal ak turi ñi faatu ci lakku immeuble boobule ak seen tolluwaay ci wàllu at El Hadj Almamo Tandian ci juróom fukki at ak juróom soxnaam di Kañaasi Tandian toll ci fanweeri at ak juróom ñaar ak seeni ñaari doom di Aliou Tandian tollu ci fukki at ak ñett ak rakam bu jigéen di Tigi Danke Tandian toll ci juróom at ñii ñoo faatu ci jéye ji yéenekaay bi di Le Quotidien seq waxtaan ak Khalifa Tandian mi doon gérer immeuble boobule ak xol bu jeex mu ne njabootam jeex na lu Populaire ne ki taal immeuble bi ma nga ñu yóbbu ci benn hôpital psychiatrique maanaam hôpital la buy faj ñi nga xamante ni dañoo amee feebaru xel ndaxte dañoo njort ne bopp waa ji dafa wëlbateku maanaam wérul waaye xalifa Tandian ci biir yéenekaay bi di Le Quotidien ne dara jotu ko Populaire jëlaat ne lu ci mën a am ki def njombe bile doomu réew mu la Saïd Mourad lay wuyoo toll at ak juróom benn bi enquêteurs yi xoolee sac bi mu yore woon fekk nañ ci biir benn briquet ak sondel yokk ci casier judiciaire am wone ne condamné nañu ko lu ëpp fukki yoon lu ci ëpp ndax sàcc yàq alalu jàmbur ak jaay drogue ma tàbbi ci Walfadjri quotidien ak mbiri Hissène Habré atem altine lay dooraat waaye yéenekaay bi xamle ne mbir mi dafay gën di compliqué ci attekat yi firnde gi bâtonnier bi ci boppam moo tere avocat yi ñu tànnal seen abre ngir rek ñu defendre ko waaye nag li leer ba leer moo di seen Habré ci boppam moo bëggul avocat yi ko chambre africaine yi tànnal ma tànn beneen dossier tàbbi ci libération ak manifester gi doon am ca podoor te mujjee ci xeexoo yu métti diggante askan mujj du neex manifeste bi ci weeru février atum 2012 la woon ñaari nit ñoo ci ñàkkoon seen bakkan Banna Ndiaye di soxna su toll ci juróom-ñaar fukki at ak benn élève buy wuyoo ci turu Manadi Si Cheikh Mbacke gisee sama naataango bi ne procureur bi jébbal na chambre criminelle kii nekkoon commandant brigade gendarmerie bu podoor di Major Cissé ak ñetti ci ay nitam Racine Ndong Muntaga ak Babacar Sarr homicide la ñu leen di toppee ma topp Ousseynou Diop nga xam ne turam siiw na fu ne la ñu koy waxtaane mooy taximan bi jaaroon ci passerelle turam siiw na gaaw waaye ci jafe-jafe la siiwee démb la dogal gi tukkee ci atem rot ñeent fukki fan ak juróom lay tëdd dana fay lu toll ci juróom fukki junni ak juróom benn yokk ci diirub at du dawal ndaxte dañuy nangu permis la ba tey xamal ñu ne beneen ab taximaan mi ngi ci ay jafe-jafe ISEC lañ ko tuddee dafa demoon uti visite technique waaye problème bi moo di taxeem ñaari vitre arrière yi dañu ko tente naka la xam ne mbir mi du jàll mu génnee juróom-ñetti ngir rek ger kii di contrôler waaja boppam wëlbatiku dem ko ak njiitam noonu ñu jàpp taximaan boobule daal di ko tëj ma nga ci mandat de dépôt wax ci wàllu politique ak populaire gi ñuy xamal ni ki tey jii ne élection présidentielle gi ñu jubli dara leeragu ci ndax 2017 lañ koy amal wala 2019 réew mi PDS UCS PS LD APR ñëpp ci joxe seen xalaat waaye li leer ba leer ku jee politique bi moom moo di ne 2017 la ñuy amal élection boobule noppi nag di dànkaafu njiitu réew mi Macky Sall kii di Abdoulaye ji moom di directeur cabinet wu njiitu réew mi ne nañu lijjante ba pare li jëm ci mandat leneen li ñu war a lijjante di lay xew ca parti démocratique sénégalais ak frondeur yi ndaxte du Diagne Fada ci boppam mi sookee yëf yi grand place ne ñu am na ñu koy contesté jamono ji yéenekaay bi demoon sax ba bëgg cee waxtaan ak moom waaye nag mu lànk liggéeykatu Dakar dem dik moom ku yeboo ne ñu ngi toog ci nen laas xamal ñu ne boo moytuwul daañu bloqué seeni compte ndax bor bi kër gi amal IPM toll na ci juróomi téeméeri million ci sunu koppar ñu wax ci ajum makaren ji ak yéenekaay bi di enquête mi ñuy xamal ni yoon bi gudd na lool bari na ay tolof tolof dooree ko ci package bi nga xamante ni diggante ñaari millions ak lu teg ba ñeenti millions ak lu teg lay doon professeur Khadim Mbacke ci biir enquête ne nguur gi war na xoolaat yëf yi jëm ko wàññi leneen li ñu war a xoolaat mu ngi ci biir yéenekaay bi di grand place sama naataango bi di ñu xamal ne rappeur bi ñu tuddee dix mille problèmes am na beneen problème bu dolleeku ci ay problème am ndaxte tëj nañu ko fukki fan ak juróom yu mu war a tëdd ci kaso bi mbiiru drogue lañu koy toppee. Euh,